Je voudrais juste éclaircir quelques détails. Euh, tu as vu Attends, je vais te montrer des trucs. Tu as vu Tu as vu Attends. gis nga kii man la fi fi nga ne mën naa la fa fekk même pas 24 heures ma téegal sa ndey yow su fekkee xamoo ma yow danga may laaj man faalewu ma la yow pauvre bu toj la fol ndeyam bi faalewu ma milliardaire waxatuma la yow pauvre bu téegal ndeyam bi gis nga nag. permettre ma la nga nekk ci réseaux sociaux yi naan am Yacine indiation day ŋaan Yacine wadd Adamo da ngay toj sa lofa nday nga ŋaan xale bu wadd est-ce que yaa may dégg bu baax a baax parce que mënuñu fee nekk ñi jëri ñëw doo dem lijjanti ñoo doon kattante demal nga lijjanti ñu doon kattante Yacine mi ngi supermarché bi taxaw mënoo gis Yacine xanaa doo gis sa bët yi toj lofa nday bi nga xool xale bi bu baax mais nga jox la Yacine jox la numéro Yacine nga naan ko am Yacine wala ma dagg billet fekk la xaw ma Amérique sa pukus boobu sax pukus laa koy tuddee sa pukus ginaar sa mundu gu nday bon googu foofu laa lay fekk bakkaar sa nday yow yow Adamo tax a xoolal sa nday damay pulli data bi gis yu ci nekk ma dugalaat la fi ba nga yegg comme yow da nga yegg yow rek yaa mun saa ba nga hmm? jógee woon sa bi sa nday gasante ba infecté data bi nëpp sa ku koy bàyyi nëpp Adamo bu Adamo bu Adamo boo di fu ne ñu juutal ko nga yaay ci ngunu ginaar yi ci mbaaru xar yi. nee nga nag du nee nga nag du ne nee nga koo jot laal ko. bii moom laal nga laalaay kay kii dafa am ay mbokk yu koy défendre yu mat sëkk. ay jigéen yu mën góor nag sama xamul duggal sama Instagram wala nga ne kan mooy xoolal sama vrai tour laa lay ne nga ma takkaar ah, am na nag ñu ci jot a mais du tudd seen tur ne caaxaan yu xëyul xëy rek dem dugg fa de. ay kilifa yu mat sëkk ñu ñoo ñëw demandé ko. wax ko beneen beneen histoire la Yacine di joué ñu nax ko jël photo montage ko dugal ko ci vidéo bon boobu mais Yacine elle jamais ça. kooku soo xamoon doo toog ci internet bi di duul di tay mais nag sa duul yooyu dina tëpp sa kaw ndax damay ñaxoon sa ndey taxaat sa loxol ndey yow. yow la sa duulu ndey. malheureusement amul nuyoo amul jot mbayam Adamo yow la ñuy mbay waxal turu yaasin bi nga di ko ñooti ñooti xaw ma dëmm nga séeréer nga xaw ma foo nday jóge nga jàpp sunu rakk ji ne danga koy Allah'ın getiriyasın dediğini husuttun yani. Milleti hepten halka havuku dibes. Doğruken çıkardın olmayınken manuler. Manuler, mafara. Nedogo vurudu. Doğru kamu hamanı yuhlatar. Mafara yuhlatur yasin. ñun da nga nga topp tudd jaamu di leen am am yaasin indi yaasin am yaasin indi yaasin lan mooy sa problème yow Adamo mu noon tëj sa topp mbay nga bàyyi nit ñi ñu nekk ci seen jàmm yaa doomu ñaaru bu tëj la foo bi nga doon moo tax nga mel ni nga mel xoolal dama lay fekk ba Yasin amul ay mbokk wala bu ñu fa ñëw ki leen bay jox turu Yasin na la wax turu ñi si def ñun xamuñu leen Yasin si boppam xamul ñu def loolu ah doomu xaj bi yow yow Adama yaa teg sa mbay yow bu ñu la joxee kaa yow doo lijjanti kaa bi nu mu kaawoo mais jox nañ la turu jox la kaa Yasin susuk bakmasını diye. Ona yok disoka amonda yukut diye. Sokut diye yanmaya sana bakın. Ya? Daya sahne fakte minni fakte lila adamı fakla herif mimala aydulu kefe. Adamı yay doğu hayav yay tümdet sayay adamı yav yay doğu haram. kaa bi bu ko amee ba tey ñu ñu ñu soog a wax ak yow musu man seera musu ma la woo frère musu la woo kii seera muy muy naan dañ ma woo muy rek mu yaasin musu la woo ñun dañ la woo dañu def vidéo dugg sa biir kuuru mbay dem pëllee sa biir dappalu bàyyi nga liya sun dara mooy tudda suñu nekk xamu dag ma